أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق منبع الأنوار جمجمة العوالم سيد الوجود وعالم الشهود صلى الله عليه وسلم mbokk yi am nañ mbégte kontaan del siwaat ak yéen ci sunu naafile du jour ak seen mbokk Oustaz Habib Socé ci sunu kër gi sunu gaal 24 tey ñu war a ñëw ci suñu 22e nuit ñu ngi nuy baax di ziar Dóor mi nekk ci technique bi di ziara ñi gars yi nekk ci xarala gi xaasi Mansour xaasi Moustapha xaasi Mahfouz ñoom ñëpp di ziar DG macha allahu mbokk yi vingt deuxième nuit yaa ngi am lan vingt deuxième nuit yaa ngi am deux rakk ñaari rakk kas nga am rakk bu nekk yaa ngi koy jàng benn faatixatul kitaab ngay jàng faatixa mooy alhamdulilah ba mu jeex nga jàng sabbih isma rabbikal aala ba mu jeex trois fois soo pare nga jàng inna anzalnaahu ba mu jeex trois fois boo paree nga jàng qul huwa trois fois jàng qul a'uudu bi falaq trois fois qul a'uudu bi nas trois fois lii moo nekk suñu naafila 22e nuit mbokk yi bul fàtte ne lii ma wax boo ko mënul tamit li nga mën naafilaa ko liñ bëgg mooy nit ki bu fanaan mukk te naafilawul xëy rek woor donte ne yàqul koor nag waaye fexe rek balaa ngay tëdd buñ mel na julli sekk na nga naafila incha allah li mu nekk suñu naafila bés bi ñëw suñu plus mu nekk suñu nasihatul yawm mbokk yi lan lañu am tey bu fàttee démb bu fàttale ko démb amoon nañ lu jëm ci wàllum xol fexe suñuy xol jege wante fexe jàmm am ndeysaan gis nga bu xol jegewante wante jàmm am kon ndekki jàmm ju jafe yépp mooy xoli ñàkk a kon tey lan lañuy am tey ñu ngi am ànd ak alquran allahu akbar gis nga téere bii rek laa wóolu parce que lépp loo soxla moo la ko jox jàppale la ci ba mu gën a yomb gis nga borom subhanahu wa taala daf ko ci alquran mu ne wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum sax nee na yéen jaam ñëpp maa ngi leen di moytandikuloo benn cause bu xam ne conséquence ci àdduna bi yëpp moo ko fi ànd ñu ne ko la la mu ne mooy fitna mu ne daw leen ko lu ngeen mën parce que fitna baaxul te gis nga li ñu amoon démb muy fexe xol yi bennoo moo ñu mën a musal ci fitna mbokk yi réew mu xat la ñu yor réew mu tuuti la ñu yor muy Sénégal waaye bu ñu yaatale suñu xol lépp yaatu jàmm sax fii jaalana allahu min alladina yastamiuna qawla fa yattabiuna ahsana assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ba suba ci beneen naafila ak seen mbokk Oustaz Habib Socé